salaamaaleykum mbokki xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës Birama Ndiaye ponk la ca njëkk bokk na ci élection présidentielle yu am foofee ca Guinée fukki candidat ak ñaar ñoom ñoo fa fësee na jongante ña nga xamante ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu po yoon ci Afrique de association des juristes Sénégal la leen ëlëm di euh, africaine la leen di ëlëm mooy bokk na ci ñàkkum lii lee di fichier bi ak yit lii lee di observateur yu Union européenne gisuñ leen fa ba tax rek ñu daal di sàkku ci CEDEAO ne ñu def seen kem kattan ngir rek daal di fonk la nga xamante ne moom mooy mbëbëtu askan wa dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi te boobu jamono yi itam doomu Guinée yi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo fii ci Sénégal ñoo ngi fësal seen njàqare ak seen tiitaange ci seen réew ndaxte nag dañoo njort ne boobu moytu euh, dina dugg ci guuto gi nga xamante ne nag duñ ko fa mën a génne diñ leen teewlu ci la nga xamante ne moo jëm ci wàllup yaatalu xibaar yi mbënd bi daal na laal lu toll ci junniy njël foofee ca Fatick ay kër yu daanu ak it dëgg ay yàquteef yu bëri ci wàllu matériel loolee niki tey ji la ñu daal def bilan xayma foofee ca Fatick xool itam ananes la ñu def ba daal di ci andi saafara li ni mel tax na nag ay ndawat pencu réew mi demoon fa daal di nemmeeku ji la nga xamante ne moom moo xew foofee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi mbas mi bu mu duggee ci Sénégal ba négé si bëri na ñooñ gune yi nga xamante ne jot na leen a laal wante nag yàlla def na sutura ba amat yenn gune gi nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam loolee ki ko xamle nag di kii di pneumologue bi nag point focal Covid 19 hôpital Albert Royer bu Fann Idrissa Demba Ba dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel ci boole yeneen xeetu xibaar li mu mbasu tey jii ñaar fukki nit ak ñeent ñoom ñoo ko amee bees ñetti bàyyeekoo biti réew fukki kenn ci ñoom xamul fan la ko jële loole wax sa xalaat kenn leen ci ponk lu ñu sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor Pape Abdoulaye Dieye moo fete ci xarala. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu banka suñu lëkkaloo tey nekk gaawu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yi ñu dooree ko cow la ca Guinée ni ki ay waxtu rek des ngir ñu daal di egg ci jongante njiitu réew mi bokk na ci fukki nit ak ñaar ñoom ñoo nga xamante ne nag ñoom ñoo fay daal di xëccoo euh, ñii di association des juristes africaines nak ñoo ngi yëglu rawatina kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngul loole ñu daal di fexeel ba lépp daal di jaar yoon te du am benn njuuj njaaj rawatina nag asas la moo si lay njàqarem bokk na ci euh, lii la di ñàkkum ñay saytu élection yi te ñu bàyyi ko ci mbootaayu xeeti rawatina ci union européenne ak yetu fichier électoral noonu ñuy sàkku ci CEDEAO mu daal di fexe fonk la nga xamante ne moom mooy règle yu ñu tëral Pape Ogo Seck mooy doon suñu gànnu xibaar ci njeexitalu xibaar yi lay doon doomu Guinée yi yeewoo fii ci Sénégal ñoom itam fësal nañ seen njàqare ci la nga xamante ne moom moo xew seen réew ndaxte dañuy tiit ëllëg mu daal di dugg ci guuta ga nga xamante ne duñ ko fa mun génne ba tax donte ne sax ñoom duñu woote daal di nañ fësal seen gis-gis niki tey ji ñu teewlu ko ci reportage Josette Kali. daanaka njàqare la ñu àndal te ay waxtu dong moote ñu egg ci Sénégal ñoo jàpp ni waxtu wi tiitlu na ndax lay xew sa Conakry dalul seen xel benn yoon. situation bi doy na waar trop trop adduna bi yëpp mu ngi seetaan lu nekk si Guinée vraiment bi ñu bëggoon élection bi jàll si jàmm ak salaam teg si yoon mais. leen demee noonu bëggeewuñ ko noonu quoi. fu ñu toll nii dëkk bi xaw nañu jaaxal tuuti Alpha Condé niñ ko Guinée xaare woon gisatuñ ko ci moom ko surtout ñun ñi nekk fii ci Sénégal jaaxal nañ trop ak lu ñu wax ñu bàyyi fa ay mbokk. tiit naa nga lan moo tax tiit Sénégal fii laa nekk mais am nga présidentielle depuis 2010 ba léegi ñoom deful foofu dara. tëj na frontière yi loolu jaaxal nañu quoi. boobee tiitaange ñëw ànd ak mer mer goo xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci li nga xamante ni du ñu mën a dem ci mbañ gàcce yi. loolu koy métti nañu trop mer nañu loolu koy moom loolu jaaduwul. lu waroon def ku nekk extérieur bu dee da nga am sa carte électeur ah, war a am occasion dem voter comme ñi ñëpp Guinée yëpp nekk ci pays bi yëpp. am que loolu politique bu rëy la waru ko def lu ñëpp waroon voté affaire bi foofu lañ ko war a defee duñ ko defee ci bitim réew loolu doxul tamit. mais loolu moom mënuñu ci dara ñoom ñoo ko dogalee noonu mais loolu ma waaye gile dibéer dinañu teg lépp ci suuf xel yi yëpp ca réew ma lay ne ñu mën di am xibaar saa su ne. dimanche kay dem damay tama rek ñaañal ñi nekk ci Guinée élection bi paase. jàpp xew foofu la situation bi foofu baax na wala nu mu demee daal information rek moo am fi génn. dimanche incha allah duma liggéey jàpp sama télé wala ma seetaan ko ci présidentielle bu tiitlu ginnaaw ay jàmmaarloo ci ajuma gi guinéen yi nëbbuñu benn yoon tiitaange ndax ragal ginnaaw yile élection réew mi dugg ci guuta réew mi dugg ci guut a tax na rek waa Amnesty International rawatina foofee ca Guinée di sàkku ci kilifa yi ñu daal di fexe garantir la nga xamante ne moom mooy kaaraange askan wa rawatina laata ci jamono si ak bu ñu génne ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub élection présidentielle yi ñu fa yéene amal ni ki ëllëg. junni njël lañu daal di nemmeeku ne lii la di ne bi daal dina leen euh, lor foofe ca Fatick ay kër yu daanu ak it ay ay jumtukaay yu bëri yu yàqu bilan boobee la ñoo daal di xayma amat na itam ab benn mission parlementaire deformation bi nga xamante ne dem na ci bërëb boobee ngir daal di saytu ana nees la fa yëf yi daal di tëddee loolee nag ci teewaay gouverneur bu Fatick Ngor Sarr. bu Fatick àndoon na ci diwaanum madame Aïda Sow Diawara ak délégation am bu ñu demee ci commune bu Palmarin Fakaaw gis nañ fa yàq-yàq bu métti bi nga xamante ne taw bi ñu amoon ñaari fan gi nga xamante ne taxawlu benn yoon diggante ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru septembre bi ñu génnee def nañ ko fa. téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn kër lambana mi laal la ak njël yi ñu toll ci collectivité territoriale bu Palmarin nga xamante ne ba léegi sapeur pompier yaa nga fa di pompe ndox ma junni njël la taw yi laal ren ci biir diwaanu Fatick Seynabou Gueye gouverneur bu Fatick. ci région de Fatick amoon nañ fi ndox mu bari boo xamante ni yàqoon na lu bari waaye tamit amoon na problème yu bari yu mu tegoon yenn population yi def nañu euh, ca Palmarin benn buse ci kaw nga xamante ni dafa ci benn bërëb feesoon fa dell mën a am yoon bu mu aw ba génn euh, palmarin rek a des. ñoom ñëpp itam nguur gi dana leen dimbale ci ciment ak zinc matelas waaye itam dinañ jot ko par. ndimbal bi nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale ko ci ñi nga xamante ni seeni kër ndox mi da koo moomoon am na ciment bu war a ñëw am na zinc buy ñëw am na ay matelas am na tamit ay sigaada waaye tamit am na leneen loo xamante ni xëy na ca kaw lay jóge transfert bi ñuy war defal ñooñu pour jàpp jàppale leen am na liggéey boo xamante ni ngi koy def ci liste yooyu. député yi itam xool nañu ay site ci commune bu Fatick nga xamante ne foofu lañ jeexale seeni i bés ci gaaw gi itam danañ demee ci commune bu Passy ak commune bu Sokone nga xamante ne foofu it yàqu-yàqu yi fa taw yi def bari na lool Ngor Sarr Fatick Sud FM. Sud ngeen fi wéy di fi taatan xibaar yi ginnaaw bu juróom ñetti simili tegoo ci juróomi waxtu ñu àddu ci loraangay mm, mbas mi Euh, rawatina fii ci Sénégal gis nañ nag bëri na ñooñ tout tànk ya nga xamante ne li ni jot na leen a laal wante nag yàlla def na si sutura ak ndox mu sedd ba amut kenn ci gune yooyu ku ci ñàkk bakkanam loolee ki ko xam na di point focal Covid 19 bu hôpital gune yi nekk ci Albert Royer bu Fann di professeur Idrissa Demba Ba noonee nag jàpp na ne faw nit ñi gën a fonk lii la di raxas loxo fexe it dandante bi ñu daal di ko fonk professeur sa Demba Ba ñu teewlu ko xab Selimane woon dafa parce que école bi bu reprendre rek dañu am xale yu bëri yi nga xamante ni say jàng day yàqu que soit école maternelle yi wala crèche yi ak aussi euh, ci université bi donc lu bokk na li nga xamante ni euh, effet indirect Covid dafa am solo ko vraiment que école yi reprendre deuxième chose aussi bu école yi reprendre ak crèche yi pour que aussi nit ñi ñoo xam ni lan mooy feebar bi feebar bi feebar bu bees la benn virus moo ko indi naka lay manifester wu si xale te gis nañu de façon xale yi moom bi Euh, taxu euh, am na ay cas sax mais yi taxu ko garaaw noonu parce que benn xale yàlla def na sutura euh, si feebar Covid bi réewu ko donc amuñ si benn cas décès même cas yi dafa néew ci xale donc bariwul donc dafa am solo ko aussi ñu wax leen c'est important que ñu continuer di def ay gestes barrières mooy raxas seen loxo. donc loolu dafa am solo xale bi mu ñëwee wala muy génn këram mu raxas loxo mu ñëw si bi mu raxas loxam ak aussi balaa mu ñibbi sax mu bu yeggee kër ga mu raxas loxo donc loolu moo ci am solo ak aussi gel yi lu ñuy wax gel yi naka xale yi di mën a utiliser gel yi donc pour que ñu bañ koo euh, ñu bañ ko naan pour ñu ko mën denc bu baax ak aussi ñu respecte distance de sécurité bi mooy mooy respecté au moins un mètre bi te loolu def si am solo. waaw des na yomb ci xale yi mais quand euh, bu ñu defee ay jéego yu bari bu ñu defee ay effort euh, ni nga xamante ni wàllu cet bi wàllu raxas loxo bi ak masque yi ñu xam ne xale yi tuut tànk yi waruñu so xale yi tuut nga xamante ne amuñu fukki at pour solal leen masque loolu euh, loolu yombul parce que OMS sax digaale OMS moom mooy a partir de dix ans xale bu amee fukki at wala daal mu jege fukki at mën na sol masque de façon normale mais lu ci am solo mooy raxas loxo. am distanciation yi ak aussi bu ñuy lekk aussi ñu respecter distance boobu ak aussi à chaque fois xale yi ñu mën a euh, ñu mën def li nga xamante ni moom mooy désinfection bi donc euh, nettoyer surface yi juste ak ndox ak saabu wala ak tuuti javel donc bu ñu defee loolu dina tax ni Covid wàññi ak aussi ñu wax parent yi dafa am solo ko seen doom yi ñu respecter seen vaccination mooy programme mu de vaccination. professeur Idrissa Demba Ba nag moo ngi doon àddu ci lël ba nga xamante ne dañ koo jagleel ana nees la ñuy def ba daal di aar tout tànk yi rawatina ña nga xamante ne ñoo nekk ci crèche ak maternelle yi ci lile di mbas mile noo ne euh, kuréel googee ñu duppee jàppoo ngir euh, gune yi ngir njëriñal tout tànk yi ñoom nag ñoo ko daal di euh, mal gannaaw bi nga xamante ne nag benn ay bés moo des ci wàllu ubbiteeg l'école gi ñoo ngay xamante ne nag Euh, ña cay yëngu ne nag faaw ñu daal di teg benn euh, dispositif euh, protocole Euh, protocole sanitaire bu ko defee ñu daal di xool saytu bu baax a baax gune yi ci ndorteelu ubbiteeg l'école gi la xab say li woon ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu tuuti tànk yi nag war nañoo ci lubbiteeg l'école bi nga xam ne ci la ñu jëm fexe ba xam fan la ñuy teg seen tànk rawatina nag ci jamono ji nga xam ne mbas mi mi ngi ci suñu réew bu ñu sukkandikoo ci secretaire général bu association bii ñu duppee jàppoo pour la petite enfance Sylvie Kenny Belel def euh, taxaw nañu daal te pare nañu pour xale yi ñu dellu si ak jàmm euh, loolu moo tax ñu invité panélistes euh, yu yu baax Euh, case des tout-petits ak euh, pneumologue yi pour ñu mun a wax ci feebar bi case des tout-petits mu jàppale ñu ñu xam ban yoon la ñu war a jël pour xale yi ñu mun a dugg ñu mun ñu wax ban protocole la ñu mun a am pour parents yi indi seen doom tranquillement coordonnateur régional bu agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits moom di samp yi la laaj nan la ñuy def ba tuuti tànk yi mun a teg dëkte yi nga xam ne moo bawoo ci kër docteur ngir xeex wàllu mbas mi Dominique Prera dañu mi na nga loxo ba mu set ñun dañoo seetlu ni xale waru masque day xaw a jafe ci moom par contre ki koy jàngal war naa mën a takk masque par exemple France xale bu am six ans du takk masque am na lu ko war boo xoolee yow mi mag ñi sax boo takkee masque même à moment donné da ngay étouffé da ngay sonn dina yëngatu distanciation physique dana jafe loolu moom du mën nekk nañ ko xool sunu doom sunu kër ak yooyu rek ci beneen wàll wi it mi ngi ñaawlu bu baax a baax ñàkk xayma maanaam statistique jëmale ci wàllu crèche yi fi mu toll ñu ngi toll ci trente deux école maternelle ak trente case de tout bon évidemment région bu nekk euh, dafa xaw a wute Dakar fii la affaire bi gën a concentré wu daanaka surtout ci wàllu crèche. ci ndaje bi nga xam ne dañu ko jagleloon nan la ñuy def ba fàggandiku jëmale ci wàllu Covid 19 ci crèche yeeg maternelle yi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu woowu nag dellu si nañu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel mu bawoo ci Covid 19 bi te mu gàllankoor bu baax a baax. seen liggéey. li mu bésu tey jii ci mbas moomee nag ñu toll ci ñaar fukki nit ak ñeent ñoom ñoo ko amee bees. ñett yi bàyyeekoo biti réew fukki kenn ci ñoom xamul fan la ko jëlee leeraay ñu ànd ci ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak benn cas contact. mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñett cas yu jóge bitim réew mooy importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Ngor am na ci ñaar West Foire am ñaar Wokam am benn Yoff am benn pikin am benn Dakar Plateau am benn Mbao am benn ak Géejawaay am ci benn. juróom fukk ak ñaari malade ci ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bu su démb ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar si ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk. docteur El Hadj Mamadou Ndiaye loraange bi nga xamante ne itam mbas mi daal dina ko def ci béykat yi loole lañu doon doon waxtaanee ci fukki fan ak juróom benn action globale yi nga xamante ne ONG PAN di pesticide Action Network moom moo ko daal di def te mu nekk fii ci Ndakaaru euh, fii ci Sénégal bëri na lu toll ci ay centaine de millions yi nga xamante ne nag daal di nañ ko ñàkk te lenn waralu ko lu dul mbas mile diggante weerub mars ak weeru weerub avril. leeraay ñu ànd ceeg Ndeye Maimouna Diène wan moo nekk coordonnatrice régionale bu boobee kuréel ñu teewlu ko ak Marie Rosalie mais yaakaar naa li euh, nga xam ne ñooy baykat yi ñoom li mu leen laale dafa metti parce que euh, dafa doy waar nga jël nga dem benn banque lépp fa xaalis mu lebal la pour nga jënd ay semences li ngay bayee ay intrants ak matériel bi nga war a bayee yëpp nga gis ab surga waxaale ak moom tamit war a ko fay xaalis nga war a jënd aussi ndox bi ak carburant bi nga xam ne moom mooy dawal moteur yi pour mu mën a arroser tool bi yooyu yëpp mu nekk ay bor yoo xamante ne yow lépp nga ko def nga ko daal di dem bay sa tool ba mu yegg ba mu naat nga daal di récolter bëgg a jaay mënoo jaay parce que tombé na ak li ñuy wax pandémie bi boobu état bi aussi tëj na nit ñi ne bu kenn génn li nga xam ne mooy yoon yi aussi tëj na ko ne ku nekk toog fi nga nekkoon léegi ñoom mënuñu woon a jaay li nga xamante ne bay nañ ko ba pare loolu mu nekk boo ko doon xayma ay millions yu dul jeex yoo xam ne ñoom perte nañ ko loolu moo tax ñoom ñu nga ñu dajaloo ci seen biir waxtaan ne ñoom des nañoo yëg ne état bi fekk si ni leen si mbas mi comme ni ñu ko doon jàppale ñeneen ñi loolu ñoom bu ñu sañoon état bi jëm ko corriger rectifier ko ñëw jàppale leen ci li nga xam ne ñoom si yoon woowu la ñu war a jaar pour mën a fay seen bor yi yoon woowu aussi si leen mën a jaar mu jàppale leen ba ñu am ay matériel agricole yoo xam ne dinañ mën a bayaat mën a am lu ñu suturloo donc mu nekk loo xamante ne vraiment ñoom baykat yi gis nañ ne ñoom ñoo gën a sonn ci li nga xam ne mooy mbas mi ñoom yëg nañ ko nu mu gën a noo ko gën a xalaatee rek yëgee nañ ko noonu jafe-jafe yooyu mm-hmm. yuuxu bi ñuy def ni mu jóge seen biir xol dañ ko def mu tombeek li ñuy wax euh, ñu ñun paan ñu ko feeta chaque at muy fukki fan ak juróom yoo xamante ne dañ koy def pour xeexal ko baykat yi seen wàll parce que loolu la seeni droit yi ak seeni gëdd bi nga xam ne war nañ koo am ci wàllu mbay wàllu suuf wàllu ndox di ñu daal di wéy ak yéen ci xibaar yi directeur général bu ADIE di agence infor de l' informatique de l' état daal dina jeexal tournée gu mu doon amal foofee ca ndar ci ndaje bu mu doon dajeek administration territoriale daal di itam visité bu baax a baax salle de commandement ba ak supervision des caméras daal di fab def itam liggéey bu mucc ayib ngir rek daal di fexe gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu kaaraange askan wa Yves Tendeng bile tukkib nemmeeku tax na ba njiitu ADIE di agence bu informatique bu nguur gi ak it ñi mu àndal taataan liggéey bi nga xam ni def nañ ko ci douane gi ci lu soxal programme bi ñuy duppee Smart Sénégal rawatina ci volet kaarange gi Cheikh Bakhoum. digital tey daanaka réew mu bëgg a jëm kanam faw nga def ko au cœur ci li ngay def yépp loolu moom ma waral Smart Sénégal ñëw tey fii ci Saint-Louis am nañ ci ay composantes yu bare yu ci mel ni lu ñuy woowee ville sûre maanaam dëkku karange loolu nag def nañu ko ak force de défense ak sécurité police gendarmerie ñoom ci seen bopp def nañu de telle sorte que artères yi ñu am yëpp ci biir Saint-Louis daanaka teg nañu fo ay caméra caméra yooyu nag ay caméra yu intelligente la ci wàllum karange muy projet bu nga xam ne nii kii di commissaire de police divisionnaire ay Diarra mi nga xam ne nii moo jiite service régional bu sécurité publique fii ci Ndar moom mu ngi lii nga xam ne defar nañ ko fii muy salle commandement bi. nekk na salle de commandement boo xam ne képp koo xam ne mi ngi nekk di liggéey muy policier gendarme militaire wala force défense et de sécurité comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp war nañ ci mën a gis seen bopp parce que dina tax dëkk bi gën a am sûreté gën a am sécurité dina nekk tamit ne ndar fii indi nañ fi ay caméra surveillance def ko ci dëkk bi ndax su ngeen ko xoolee nii caméra yi côté bu nekk loo fa bëgg a xam di nga ko xam. tey jii wàllum surveillance bi ci biir île bu Ndar rawatina ci langue de barbarie ak it ca daara ji kawe gi di Gaston Berger bu Ndar soxal na ko lool. jafe-jafe bu njëkk bi mooy waa Gendar bu ñu meree génn day nekk lu jafe lijjanti bu loolu wéyee waa université bu ñu génnee day nekk lu jafe lijjanti.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 invité Ndeng daal di dem fa nga xamante ne moom mooy ca Saalum ak la bërëb ya nga xamante ne rawatina dëkk dëkkaan yu daal di ruqe yu demee nekk yu nekk ca commune bu Poroxaan ci département bu Nioro daal di nañ leen euh, génne nag ci ruqe googe ñu nekk piste bu dox diggante Poroxaan Kër Moussa ak frontière ba loolu yëpp doon na la nga xamante ne nag lii la di Puma moom moo ko daal di amal daal di fexe itam yoon boobee ñu fa daal defar lu toll ci ñaar ñaar fukki dëkk dëkkaan ak ñett dinañ fa mud euh, génn ci ruqe gi ñu nekkoon loole mu ngi amoon ci teewaayu ajaratu awa Thiaw. jafe-jafe barab bu làqu dey léegi day nekk pàttaliku ci commune bu Poroxaan ndaxte kat yoon wi nga xam ne sii moo nekk diggante Poroxaan Kër Tamba ak Kër Moussa frontière te waa Puma defar ko daloo nañ ko ci alxemes bi ki ko njiite woon nag mooy jëwriñ ji nga xam ne si moom lañ dénk développement communautaire ak équité sociale di Mansour fay tali boobu nga xamee ne si guddaayam ëpp na ñeent fukki kilomètres ak juróom-benn ñu def ci ak juróom-ñeent fukki million ci suñu xaalis dana làqar ci ñaar fukki dëkk ak ñett yoo xamee ne si nekk na ca gox ba loolu de dana yombal dem beeg dikk bi ci askan wi wante tamit seeni marchandise ak lépp loo xamee ne si ña ngi ko fay bay Mansour Faye inauguration piste bi ñuy def man ba mu fiy dugg mën mënu imagine gox yi nekk fii yépp yoon amu fi woon waaye président dafa am programme boo xam ni dafa tëral tuddee ko PIMA di yëngatu bépp gox boo xam ni nekk na ci frontière mu tudd leen les programmes d'équité territoriale équité du yamale équité mooy fexe ba gis koo xam ni lu mu yore dafa néew nga defal ko da nga sot mu dabaate ñi nga xam ne ñoo ko rawoon léegi pour ñëw fii dootul problème bu na suñu borom def mu ñuul yan na ñuul lépp dëkk boo xam ni maanaam amul woon yoon mu am yoon dëkk boo xam ni amul courant mu am courant dëkk boo xam ni amul poste santé mu am poste santé dëkk bu amul école mu am école. parce que loolu lay président di def moom dañuy wax ni du théorie day jëf askan bi la gis parce que askan bu amee soxla nga indil ko saafara mooy mbir bi te saafara si tàmbali na lu indi yoon bii mën indi lépp ma wax gën naa ni daañu ci defaat yeneen at parce que gox bii nga xam ni dëkk agricole la laaj ñu ñu gën ko désenclavé parce que dañuy indi ngeen produire fii il faut ma am ay yoon pour ñu mën ko yóbbu bu fi yoon amul dinañ ko mën a yóbbu donc au delà bu faciliter mu faciliter maanaam lu askan wi dëkkee ci gox yooyu nag profité nañ tam ci occasion bi ngir waxaat yeneen bëgg-bëgg ñi nga xamee ne si ñoom ñoo nekk autorité yi moo di jàppandal kuran ci dëkk yi nga xamee ne si yépp yoon woowu romb na ko xàll ay périmètre li lero ak baawu bolon bi su ko defee ñu mën faa bay ceeb waaye tam ñu tabaxal leen benn bassin aquacole ñu mën a yar ay jën awa doon jokkoo ak fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Sud FM ganu bés bi. di professeur Pape Ogo Seck moom mooy président ASAS di àddu ci la nga xamante ne moom moo nar a xew Guinée rawatina ci jamono élection yi la ñu teewlu ko El Hadj ñu ngi ak Pape Ogo Seck ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay sant El Hadj yow nag yaa jiite eh, association des juristes africains di. mu am nag lu xew ci Guinée suba élection présidentielle boo xam ne mu ngi am fukki candidat ak ñaar ñoom ñoo koy xëccoo waaye ñaar ci gën a fës Pape mooy enjeu élection yi foofu ci Guinée. waaw ñun élection yi pour ñun euh, dafa am solo euh, il faut que ñu xool euh, processus yi nakk lay demee ndax ñun juriste yi du dañoo décidé woon sax génne benn communiqué ci fan yi di ñëw. pour xool euh, nu ñuy accompagner processus électoral boobu Guinée ndax euh, juriste yi di ñu am aussi benn rôle prévention bu ñu war jouer euh, pour gën assurer paix ak sécurité fii ci wàllu Afrique donc élection yi nekk na élection yoo xam ni élection yu am solo la donc lu ñuy def rek mooy rappeler ñaari point yoo xam ni daf ñu xaw jaaxal tuuti benn bi mooy ñu ngi poser question di laaj pourquoi Union européenne Euh, nanguwul yónnee euh, ay observateurs ba tey su dee seen position changé gul ñaareel bi mooy fichier électoral bi il faut ñu xool pourquoi euh, mu am ay quelques contestations ci diggante bi ndax dafa mel na processus électoral bi fichier bi daal dina ci dina ci poser ay quelques quelques problème donc looloo tax ñu ni que war nañu jéem a xool ni ñuy gën accompagner processus bi am na sax suñu ay naataango juriste yu nekk foofu ci Guinée daañu leen yoon ni ñu xool aussi processus bi ni muy demee mais lu ñuy wax daal mooy du ñu ñu gën lu ñu bëgg mooy ñu permettre peuple Guinée mu mu mu exprimer position am ci vote yoo xam ni dafay jaar yoon ndax su vote bi jaaree yoon rek jàmm dina am mais su fekkee ni peuple bi gisul boppam ci vote bi su fekkee ni fichier bi leerul su fekkee processus bi jaarul yoon boobaa lu wóor bu wóor mooy dina indi crise politique wala crise sociale ci république bi nga xam ne mooy Guinée. waaw ndax tey jii nag yëpp mat na bañ am élection yi ni nga ko bëggee mu élection tegu ci woon ba pare lu am benn sikki ndax conditions yi réunir nañ ko fi mu toll nii ci Guinée. yi mooy lu ma wax léegi rek loolu mooy suñu problème maanaam conditions yi nga xam ne moo permettre jàmm am mooy d'abord ñu xool ndax fichier électoral bi nekk na fichier boo xam ne fichier bu bu leer la. Euh, il faut que aussi que autorité guinéenne ni ñu accepté su fekkee loolu mooy seen problème ak union union européenne il faut que aussi ñoom autorité guinéenne ñu accepté comme union européenne nu ma koy laaje ñu indi ay experts yoo xam ni daañu mun xool fichier bi parce que euh, observation électorale foofu lay commencé ci fichier bi lay commencé ñu xool ndax fichier bi leer na ndax fichier bi jaar na yoon ndax amul ay contestation ndax amul ay doublon ak yooyu suñ ko xoolee ba pare ñu mun dugg nag ci processus bi nga xam ni mooy indi élection bi donc boobaa daañu xool ndax euh, vote bi ci boppam jaar na yoon ndax amul ay ay incident ci vote ak yooyu yooyu su amee euh, dina tax euh, jàmm dina am moo tax dañuy laaj ginnaaw Union européenne dañuy laaj waa CEDEAO suñu mënee teel teel teel nii su dee ñoom dañuy yónnee observateur foofu parce que en général dañuy yónnee observateur ñu jéem a xool fichier bi nu muy demee ndax fichier boobu souvent mooy pose de problème su fichier bi baaxee ñoom observateur CEDEAO daañu mën accompagner euh, processus électoral bi pour yëpp nekk ci jàmm moo tax CEDEAO dafa nekk institution boo xam ni dafa jouer benn rôle boo xam ni ci kanam la koy jouer maanaam en moom maanaam ci départ bi lay commencer xool mbir bi nu muy demee moo gën ñuy toog di xaar ba mbir yëpp jeex euh, problème am Euh, ñu commencé ay nit wala mu am ñoo xam ne dañuy am ay gaañu gaañu ñu soog a dégg CEDEAO di wax donc dañuy lancer appel CEDEAO pour que ci teel teel bi ñu mun xool accompagner pouvoir bi nga xam ne tey moo nekk ne accompagner ko d'abord ci étude fichier bi accompagner ko ci processus bi observer ba yëpp jaar yoon bu boobaa jàmm dina am ndax peuple bi dina xam ne que lii mu décidé tey moom moo ko décidé kenn trafiqué wu ko parce que mun nañu wax troisième mandat wala quatrième quatrième mandat. mais quelque que soit le nombre de mandats l'essentiel mooy ni que peuple bi mu exprimer wu ci ay termes ci ay procédures yoo xam ni ak ay processus yoo xam ni dafay leer loolu moo mun garantir démocratique euh, démocratie fii ci république Guinée ak si yeneen dëkk yi. mais gis nañ tamit ci campagne bi Pape dafa amoon nag ay wàllu violence ay xër-xër waaye tamit surtout ay kàddu jëm ci yenn xeet ndax loolu tamit du gën nañu am tiit ak njàqare ci ëllëgu Guinée ci élection yi nekk nii. waaw euh, histoire xeet yi moom yàgg na gine problème la boo xam ni gis nañ ko Guinée am na am na ci yeneen dëkk yi bon mais mais problème bi mooy diggante pël yi ak euh, ñi ngi ñi ñuy wax euh, mandeng yi ak ñoom moy mooy ñeneen ñi ñoom Sékou rek ak ñoom Conté yooyu parce que dañoo gis ne que ci début bi ba tey mandeng yi ñooy di ñooy diriger ñoom ñooy diriger. te pël yi amuñu pouvoir trop ci système bi nga xam ne mooy système politique guinéen donc jaadu na aussi euh, à un moment donné pël pëli Guinée ñi ñoom tamit il faut que ñu participer ci pouvoir bi parce que suñ neen écarté sooy xool ci début processus bi indépendance bi ba léegi nii donc jaadu na mu am équilibre ndax pouvoir aussi équilibre la ndax nation dafa nekk loo xam ni fii ci Afrique nu ñu koy comprendre bokk ak yeneen réew yi comme tubaab bi ni ñu ko doon comprendre ndax am na sax benn téere bu ma génnee woon temps yi passé ci euh, l'harmattan di ko tuddee euh, Euh, la construction de la nation en Afrique maanaam lu ñuy tabaxee nation Afrique te sooy xool diggante kaa Sénégal Guinée ak Mali am na lu ñu seetlu woon mooy ni que malheureusement euh, dafa am euh, loo xam ne souvent dañ koy gis fii ci Afrique mooy ni que du ñuy foog ni que yow sa xeet bés boo nekkee pouvoir rek loolu mooy nekk nationalité bi alors que nation nekkul expression xeet nation nekkul expression lu ñuy wax identité locale te Afrique souvent du dañuy jël identité bi maanaam seen xeetu bi ñu nekk ñu jéem ko ériger mu nekk genre nation dominante wala ethnie dominante boo xam ni boobaa day indi ay contradiction ci li ñuy wax état nation donc il faut que ñu construire benn nation boo xam ni day romb xeet yi day romb sentiment euh, familial yi day romb sentiment clan yi ak yooyu ah pour que ñu mun tëral benn li ñuy wax état de droit boo xam ni dina dépasser affaire xeet yooyu ndax loolu mooy avenir Afrique suñu buggee cons euh, tabax nag benn démocratie boo xam ne démocratie bu dëgër la il faut que Guinée ñu jéem a aussi inspiré wu ci euh, loolu ñuy wax nation pour que ñu jéem ko def indépendamment ak xeeti indépendamment ak clan yi indépendamment ak famille yi parce que loolu dañoo seddu ci suñu gëstu ni loolu mooy problème Afrique bu njëkk te loolu moo tax pour ñu construire li ñuy wax démocratie day loo xam ne day métti pour ñu de droit day loo xam ne day xaw jafe. Papa Ogo Seck bu baax a baax. ah d'accord merci El Hadj Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre wax sa xalaat. quatre-vingt-huit lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 tey kan tënk leen. allo Birame ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam Birame na def. sant bu baax alhamdulilah. Dia. Amadou Padoa moo lay nuyu di la siyaare. delloo ziar Dia. di siyaare bu baax sama ñetti station di leen ñaan gudd fan ak wér xéewal ak ndam yu yaatu yaatu. su loolu jàllee nag mbas bi moom ñu continuer ñaan yi rek maa ngi ñaan sama ñetti ustaas yi ñu continuer ñaan yi ak kilifa diini ci réew mi yëpp ndax saa borom gën ko fay jëlee te nit ñi bañ a sàggane seen i masque ak seen matuwaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon digal ba yëf yi doog a ñëw ba fi ñu toll parce que comme jeexagul nañ continuer ci matuwaay jëloon rek ba suñu borom àgg delloo ko gannaaw ni mu ko néew la doole kilifa diini yi seen i ñaan am na solo lool parce que ñaan mooy ngannaaw jullit buñ ko delloo gannaaw mukk buñ ko négliger nuñ ca saxe woon rek fu ñu jullee di ñaan fu ñu dajaloo di jàng alxuraan di ñaan nañ ca continuer rek ba ba mañ koo déggati ci réew mi yàlla mën ngi félicité bu baax monsieur le ministre ko ko te ñu tànn ministre des sports ci Sénégal Afrique gépp jébbal ko ne moo ci gën a xarañ moo ci gën a baax moo gën a yaru loolu yàlla na doon njiglaayam te di njiglaayu Sénégal gépp te yeneen topp ci yu bare bare bare jox ko coupe d'Afrique jébbal ko coupe du monde yooyu yëpp yàlla mën na ko yaram ak tegginam aasanam bu man mën na ko koo jox ak gëmam li nga xam ne si moom moom lay def ak bëgg président am ndam kon yàlla na ko ci yàlla jàppale bu baax ba ndam yi gën a yokku te mu jig réew mi yëpp te dem Fatick feete ko fa bu ñëwee jàmm euh, ministre de cabinet directeur de cabinet am la yónni pour mu jëli ko kon loolu yàlla na ñëw jàmm ñu ànd dem feete ko cabinet ñëpp ñëw Fatick ñu feete ko waa Fatick gépp génn ñu sagal ko sargal ko ndax nit ku baax la nit ku jub la lu jëmale président kanam rek lay wër ak njabootam jërëjëf ak mi jërëjëf a Dia ca Padoa ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628. maaleykum maaleykum salaam. Birama. waaw. walla Umar Sow la. Umar Sow Fuladu. waaw maa ngi lay baax la sant di la ñaanal yàlla hmm. yàlla aar la aar sa njaboot yëpp. Hmm. ak mbokku euh, groupe Sud Communication yëpp. jërëjëf. man dinaa wax tuuti dama koy tënk rek mooy élection bi passé fii si amul fii si Fuladu mooy le directeur euh, de l'ARD. temps yi passé dafa am ay presse ay ay presse locale xaw ma ay ay presse écrite yu dal ci kaw ministre bi li ma lay bëgg a leeral foofu mooy ci tënk gis nga le processus la lépp a euh, kii ad euh, kii PNDL moo ko présider du début à la fin ministre bi du si dara en tant que président du conseil d'administration président conseil d'administration nag il est le ministre de la république il est le président conseil départemental Kolda amul jot mun a teew fu nekk laa am na foo xam ne dafay délégué nit ñoo xam ne wóolu na la si liggéey bi mu délégué leen fële mooy le mooy le coordonnateur euh, de PRS de Younoussa Mballo mu dem foofu représenté ko déñ ma ak nu mu ko war a représenté kii euh, sélection technique bi yëpp PNDL moo ko organisé bi à la fin les maires du département de Kolda de mooy le frère qui est là-bas mooy Sada Baldé kooku amul benn par parlu ku wax foofu ministre dafa par parlu kooku day wax lu ko neex ministre yoonam newu ci affaire PLD gérul PLD ministre des des collectivités locales amoon na foofu représentant ministre des finance amoon na représentant plus encore euh, nu mu tudd sa euh, PNDM ñoom tam ñu ngi foofu noonu laalaw ñoo organiser début à la fin keneen ku ko wax foofu noonu ministre de la République foofu Moussa Baldé koy tooñ ministre dafa nekk fa liggéey askan taxaw askan taxawu Sénégal fu mu ko war a taxawee kooku dañ ko war a ñaanal yàlla vraiment taxawaay si biir mbay mi rawat na ren ko wax vraiment jaajëf fay monsieur le ministre président de la république bi ñu xalee doomu Fuladu boobu noonu vraiment jiital ko vraiment si mbay mi ñu ngi ñaan vraiment yokku gerte bi bu noonu ñun béykat yi vraiment bëgg nañ ko trop le na ko Sonacos wax nan yéen bu ñuy am loolu pour mhm. yokku yàlla yàlla jërëjëf Omar Sow ca Fuladu ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Birama. waaw Diop. ndongole Cheikh Diop yàbbati Diop moo lay nuyu. ñoo ngi di delloo. <coughs> di la siyaare di nuyu sa technique seet di nuyu mboolem pour wax sa xalaat. di wax tey jii li may waxtaan rek mooy maanaam li may njëkk mooy maanaam ñi ngi toll ci récolté. waaw su commencé bàcc eh, bay ak euh, commencé bëgg a commencé deqi gerte gi. ca baykat bu ne ci boo am aw yoon yoon wi nga xam ne moom laa la njaaxam mu jóge sagat Louga ba Mbàkke Kajoor maa ngi koy ñaan di jë jaajëfal nag ki nga xam ne mooy jiite te Sonacos muy Mourou Diagne Fada tourne waa bi nga xam ne mi ngi koy def tey jii pour ñaax baykat yi pour dilo ci xeli baykat yi ndax dem na fu bare bare dem na Casamance dem na Kaolack dem na feneen feneen ci mi ngi wër tourne tourne bi ba ci Jurbel ak fépp tey jii pour maanaam baykat yi ren yàlla di na xay na gerte dana am gerte gi boo amee nañ nañ gouvernement bi na fexey yokk moom itam ñoom itam nañ ko fexe ay jaay maanaam Sonacos ba nga xam ne tey jii luñ soxla ci diwlin ci diwlin ci réew mi maanaam diwlin ko du jafe gerte buñ ko soxlaa jiwu du jafe ndax xam nga ne daaw juróom gerte daanaka mille francs te xam nga ne seer na lool lool lool ci aw jiwu wax da nga ko bëgg a jënd di jiwu kon li ci nañ ko jaay Sonacos ndax wax nga yàlla Mour Diagne Fada mi ngi def liggéey boo am solo solo ndax dégg nga barki démb dégg ko li mu tey jii dana wax président maanaam baykat yi mu yokk prix bi ba nga xam ne baykat yi daañu ci seen bopp loolu am tey jii fi mu ngi def tourne fépp foo xam ne ab usine nga fa mu ko defee maanaam xam ne di yàlla jëlee na ko bare bare bare ndax boo seetee tey jii ay emploi yu bari yokk na ko boo gisee fi mu toll tey jii machine yu bari yu taxawoon réparé na ko ak leneen ak leneen fa mu muy door machine bi gis ko ñëpp xam nañ muy département Kébémer ma nga fay def lu am solo solo solo kon nag ku mel noonu kuy liggéey président na seen ñi nga xam ne ñooy liggéey mu ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne pour réew mi euh, gën a jëm ci kanam gën a naat waaye daal suñu yoon wii ñor nañu lool lool lool ndax am dëkk yu fi nekk yoo xam ne amuñu ko waraaf mel ne Kër Mor Abdoulaye Seye Darou Ndiaye dëkk sëñ Assane euh, sëñ Darou Assane yooyu yëpp nañu si dimbali yàlla ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen euh, mi ngi leen di jaajëfal baax waaye dëkk tamit ah wax ko jërëjëf jërëjëf Cheikh Diop Yabatil Diop ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sant ba alhamdulilah. moom politicien yu Sénégal. waaw ay doomu aadama dong lañu ñu bépp doomu réewu Sénégal. kon gis nañ ne ku fitna feeñ ci kàddoom. mbaa yëngu-yëngoom lu dul jikko bu mu màggale waralu ko. citoyen bi xelam aju ci yenn askan bi jàmm biir réewu teranga bu dëggu xam na ne bu nitee yara di ko aussi waralu ko te comme jaamu yàlla dafa bokk ci li ñuy ci liy dundal suñu askan ci yar ak teggin bu mucc ayib gis nañ ne dundinu doomu aadama yi bu teguwul ci yoon bi waral buñ digaale lu mën jur jafe-jafe déggoo ak àndandoo ak juboo te ni mu gënee te lu dul euh, jàmm dootul dox seen diggante dafa fekk ne ñi wuyoo jaamu yàlla war a doon exemple ci biir askan bi joxuñu solo ñu leen yàlla binde donc te ci loolu dañu réere mbir ne buñ toll ñun boroom xel yi ci biir mbindeef yi coobare suñ borom wal kitaab yi abadan ay ndawam yu gore ñu ngi ànd ak ñun teg bët ci lu wër suñ bépp jëf bu ñuy bind pour yowmal xiyaam rek tere nañu mën tricher ci suñu jëflante kon jëf ju rafet su ko bëpp politicien di yëngu moi je pense bien que dina yomb réew jëm kanam ci ngëneel te loolu jafewul kenn ndax li doxalin bi di ànd ak barke li député Aliou Dembourou Sow wax aussi te rëccuwu ko man gis naa ne dafa war a leer ne su président Macky Sall yeggee ci déposer candidature am pour troisième mandat lu ni mel dinañ ko fi gis en chercher le naturel il revient toujours au galop et donc que cela constitue un manque de sincérité vis-à-vis de Dieu et un manque de respect de considération à l'égard des citoyens prouvant pertinemment que nos hommes d'État se moquent de la nation sénégalaise kon nañ dëgg ci li ñu nekk jërëjëf jërëjëf Almahdi woote ca Kaolack ñu daal di jël keneen biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum waaleykum salaam Birama. Sall. Ndiaye ñoo ngi lay ziar bu baax. delloo ziar. Euh, Birama man nag defe tey jii damay dem ba Thiès. ndax la fa xew mooy li ma jaaxal te mooy football boobu fa amoon. fa hmm. Birama ñun suñu réew mi kañ la ñuy organisé wu. Hmm. nan lan mën a jëlee football woo waa Mauritanie ñu ñëw fekk ñu fii Sénégal ñoom bu ma juumul dimanche lañ ci ñëw. altine talaata ñu war a football. ñu ne bi ñu leen seetee ñoom juróom ñett ci ñoom am nañ feebar bi. Hmm. waaye ñoom fan lañ jaar ba dugg ci réew mi Rosso Sénégal lañ jaar wala euh, kara xaw ma karang la xaw ma lañ jaar wala ci aéroport bi lañ jaar wàcc xanaa ñoom ba ñu ñëw kenn seetu leen benn ñaareel bi mooy lan moo tax ñu ubbi stade ba nit ñu doon dajale téeméer ñaar téeméer ñetti téeméer ba am bee ñu ubbi leen stade ba ñu dugg toog bay xaar football ñu ñëw ne leen affaire ba amatu léegi ñooñu seen i bee kan moo leen koy remboursé. mais aada xaw ma euh, kii Birama. Hmm. dëgg dëgg nag Birama suñu réew mii war nañoo gii ma walbati ni ñuy def ndax ñoom bu fekkee ne am na tam ñu wax ne waa Mauritanie ñoo bañoon a def test bu ñoo bañoon def lii nan lañ koy bañe yow jàngoro am na yaa ngi woo ay nit ñu war a ñëw nee leen soo leen accès da ngeen di def lii bu ñu ko nanguwut nañ toog seen réew mais yow yow daal da ngay dem lu la neex ba pare rek nga taxaw te bu subaa ëllëg bu ñuy def seen bilan boobu ñuy faral di def. ñu la wax li ñu pare ci football bii nga xam ne moo xewoon Thiès dañ lay wax nangami million la te kenn xamul fan lañ koy dugal ak xaalis bi ñu récupéré ci doomu aadama yi nga xam ne dañ doon dajale man ñooñu laa gën a yërëm ñooñu su ñuy mujj waajunu waxuma laa di dem billaahi waajunu lii lii lii du dem biraama ay nit dañuy nekk nit ñoo xam ne ñii dañuy dañuy organisé wu waaye yow di waaxu di dem rek ba mu neex la nga tëb taxaw sànni say loxo ba kañ jërëjëf jërëjëf Malick Sall ca Italie ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. waaw lay nuyu kii de Maram Faye la. di wootee Maram Faye Colobane waaw. di nuyu gars yi yëpp Aliou waa euh, dama gis benn rapport bu génn ñu ne Sénégal moom moo nekk troisième pays ci àdduna bi boo xam ni moo gën a ëpp ay chômeurs bon loolu man gëm naa ko. Hmm. parce que jamono yi boo gisee suñu doom yi ak suñu jarbaat yi ak suñu rakk yi ñu ñuy gën a ci gaal yi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla waxuma la chômage waaye réew mi moom dara dara amatul. te nag loolu ma def ci benn jàngat parce que euh, euh, ndaw ñooñu noonu euh, maanaam seen yaakaar moo tas seen yaakaar moo tas ci suñu njiit yi ba tax ñu jël seen i quatre cent mille seen i trois cent mille dajale ko ak seen yaay ñu yëpp ñu dugg ci ndox mi ci quintessence mën nañu dee ci yoon bi mën nañu àgg du ñoom liggéey loolu yëpp ay njiit yoo xam ni xamuñu fan la ñuy teg suñu tànk ñu ko teg. nga foog ne loolu mënuñ koon def fii liggéey fi. mënu woon ñu ko. 400 millions yi ñu dajale di dugg ci géej mënuñ ko woon dajale fii liggéey fi non xam nga dama la 400 millions mën na am seen ñoo leen koy dajale wala ñu def ay pexe parce que 400 millions boo ko dajalee. moom laa na nga naa am na demaat euh, naa dara man ci euh, naa dëkk bi doxatul. Mhm. am ñoo xam ne sax dañuy ay affaire ay ay lu la ñuy def pour am 400 millions yooyu noonu. non état bi moo deful dubaaram tey itam man dama jàpp sax loolu man erreur la man dama jàpp ne am réew euh, ñun ñoo moom suñu réew mi Macky Sall ko. dama jàpp ne mën nañu rester Sénégal fii toog jéem a wut seen carte d'identité ak carte seen carte électeur yi fexe fi jëlee nguur gi nga xam ne nekk ñu ko lu may di ñu menacé di wut ne dañuy sax ay jaas di lëkkoo pour ñu pour Macky Sall def troisième mandat ñu fexe jëlee leen fii loolu mooy solution mais pas dem dugg ci gaal yi mën nga dem dem dem Espagne man dama jàpp ne ñun ndaw ñoo moom suñu réew mi nañu fexe jëlee fi Macky Sall parce lu ñu ci gën a yàgg rek gën a yàq te kenn du wax nag Birahim kenn du wax dëkk bi li fi nekk kenn mënu ko wax nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi am problème njàng maa ngi da ngay jàng ba am licence doomu liggéey mbay maa ngi wax naan nii la ñuy def ak sama ko fekk nangam du ñu def dara parce que mënuñu ku mënu doow lu yàqu yow la Macky Sall ak nguuram xam nga lu ñu mën nekk naan ay audio kii audio kële ñu xuloo guddeeg bëccëg te leen ñun loolu intéressé wuñu ay audio yu génnee bi depuis deux mille euh, xaw ma deux xaw ma lan loolu ñun intéressé ñu ñu gën a intéressé mooy wax ñu ñun nan la ñuy fexe ba suñu réew mi développé ak suñu doomee suñu njaboot sant baax di dem jërëjëf Maram Faye Thiaw Colobane ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu juróom-benn waxtu jotee kii la di Aïssatou Gueye ba ñëw ak ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu bàyyi leen ngeen wéyande ak seen programme seen rajo. Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñépp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk. OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may